mbokki julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu seen mbokk daara Abdoulahi Gaye mu leen di nuyu di leen ziyaare ci subak ajjuma ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jaamu yàlla def ñu dëgg dëgg jullit waaye sambal ñu suñu gëm bam bañ ba bu ñu demee mu mën a kontaan si ñun moom suñu borom subhaanahu wa taala ñaan ko yàlla nañu nangul suñu ajjuma waaye yàlla ñu musal ci jàngoro bi yàlla nañu tàqaleeg moom ñi mu dal yàlla na yàlla fëgg seen bopp delloo leen seen sago ñu dellu seen njaboot ak seen liggéey ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan yal na borom bi jéggal leen te yërëm leen barke alquranul karim yóbbal tey bi day ñëwoon na fi sax xëy na ci ñenn ñi nga xam ne yàgg nañu topp yóbbal bi waaye dafa am solo moo yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mas a wax benn saxaaba te saxaaba bi mu doon waxal ñu ngi koy wax Muaz ibnu Jabalin mu bëgg ko lool nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni ko yaa Muaz inni uhibbuka allahu mbokk yi loolu di lu solo ku sallallahu alayhi wa sallam bëgg ba jàkkaarloog yow ni la ku bëgg laa saxaaba bii di Muaz ibnu Jabalin de amoon na ko bi mu ko bëggee nag di ko diggal loo xamante ne dina ko jariñ moom mi ko bëgg mu ni ko maa ngi lay digal saa yoo te ginnaaw julli bu ne maanaam julli suba julli tisbaar julli takkusaan timis gee boo julli na nga jaar njaan gi mooy allahumma ainni ala dhikrika wa shukrika wa xusni ibadatik muy ñaan gu gàtt goo xam ne ñu ngi ñaan ñëpp nañ ko jàng mokkal ko allahumma ainni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik boo ñëwee nag boo xoolee ci bind bii nga am ci tableau bii macha allah lim la jox mooy allahuma ainna yonent bi ba mu ko ko wax da ko doon wax mu def ko ci moom dong mel ni ku singulier la mais fii daf ko yaatal daf ko mel ni ku koy wax ci pluriel maanaam ñaanal ñëpp fii dafa wax ne allahuma yow suñu boroom ainna yàlla nag ñu dimbali ala dhikrika ci fu ñu toll ñu lay fàttaliku te di la tudd yow borom bi subhanahu wa waaye wa sukrika yàlla nag ñu defal dimbalu fu ñu toll ndax nag tudd yàlla dafa am solo ndax ala bi dikrillahi tatma innul qulub moo tax mu koy wax loolu beneen bi mu ni ko wa sukrika di la sant ndax yaa ni kat bu ñu santee nga dolli ñu kon ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu ci ñu lay sant waaye ñetteel bi nga dimbali ñu ci ñu rafetal ni ñu lay jaamoo ak am solo mbokk yi jaamu yàlla am na solo waaye rafetal ni ngay jaamoo dafa ëppati solo moo tax mu ni ko wa xusni ibadatika ma rafetal ni ma lay jaamoo kon ñàlla gu gàtt gu am solo dañ koy wax allahumma yow suñu borom ainaa yàlla nag ñu dimbale ala dikrika ci di la fàttaliko wa shukrika di la sant wa xusni ibadatika di rafetal ni ñu lay jaamoo su ma ñëwoon ci taxi bi te bañ a wax olof bi mooy allahumma ainaa ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatika yàlla nañ ko suñu borom defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu